ba léegi rek vote bi di wéy ci centre bi nga xam ne moo di Madiane jamono ji nag ay matuwaay dëgg la ñu ci jël naaj bi tàng na ji askan bi ku nekk di ran ngir mottali sa devoir citoyen mu mel ni nag ci ay jafe-jafe dëgg la ñu ko def maanaam naaj bu tàng ak buuxante gannaaw loolu itam amul benn jafe-jafe daanaka bu bëri boo xam ne nemeeku nañ ko ci waaye nag la ñu ca mën a wax moo di ay barrières yoo xam ne daal ñii nga xam ne ñoo di takk der yi def nañu ko ba ñi nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa voté nga daal di voté génn jàmm waaye lépp loo xam ne itam jëm na wàllu kaaraange askan bi nga xam ne itam ñoo ngi ñëw di voté ñu ngi leen di jàppale ngir di leen won seen ay bureau de vote ñu koy rafet rafetlu bu baax. waaw xam naa sama bureau de vote. jafe-jafe vraiment amagu ci moom jafe-jafe moom amagu ci moom wax dëgg yàlla lépp fii moom lépp jàmm benn instant yi moom nii moom bu continué woon dañ ci am yaakaar CRAW lépp mën nañ ko accordé quoi waaw lépp nañ ko accordé xëy na nag li nga xam ne nag ñu bëri mënees na ko cee nemmeek muy représentant yi nga xam ne ñoo war a nekkal juróomi candidat yi ci bureau de vote yi loole daanaka ngir ñu matale ko ay jafe-jafe dëgg la kii moom moo jiite centre de vote bi di ci ànd ay leeral. représentant yi nag kenn rek fi nekk mooy représentant Macky Sall. voilà les autres candidats les quatre gis ñu ko donte sax am na benn mandataire Madické yi bu fi jaar doon contrôler mais jusqu'à présent. benn euh, représentant Macky Sall lañ fa gisagul. université bi nekkee ci Madiana bari ñoo xam ne nag ñu ngi ci voté waaye nag ba léegi ñëw bëri di ko teg ba ndax ay jafe-jafe yoo xam ne ñi ngi ko doon jànkanteel ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn jamono ji nag mbir ya ma ngay jaar ci yoon.